jël ko def ko direct jël seen i koppar def ci seen i poche ak ña ngeen ko seqal ak seen ay patron ngeen toog di ma seetaan vous ne faites pas de publicité pour mon événement yaa ngi dégg yéen vous cherchez le buzz et puis vous l'exploitez à vos propres fins day dakk tey nag tey jii lay dakk da ngeen j'autoriserai plus benn organe mu jël suma événement di ko def direct sans pour autant mon aval am na ci ñoo xam ni jot naa ci jokkoo ak ñoom ñu ngi ciy jataay bi waaw dañ leen jàppalante ñu joxante cër tuuti mais ngeen ñëw def lu leen neex ci kër jàmbur te dara après dem amul njariñ dafay jaadu sax man dama doon gis sax après ngeen ñëw ne attends mais ala na ñu def benn bando ñu def ko ci suñu site du dëgg ngeen jàpp ci promotion bi mais yenn vous nous pressez comme de oranges wala citron après keep and self go dafa yomb trop gars yi boobu mise au point la woon rek ngeen ay ko xel koo xam ni jël na suma événement def ko direct poursuite boo ci gis du yàgg Pape Abdou Fall la moi ça c'est géré par une autre structure te it duma ci immiscé wu duma ci wax wasalaam ayca ñu commencé